tey Bou Siteu na moytu encaissé coup Malick Ndiaye 37 fou ndax Malick li nga koy gis nii doole ji ëpp na noonu baa jiili doole ji ëpp na noonu waaye kii di Bou Siteu loo ci mën a xam ba mën xam ko ci daal saa dem di yo ba saa buy dem xam naa ne day dem saa dem na ko lu wóor a yëkkati lu wóor na ko yëkkati sinon bu ko lu wóor yëkkatiwul xam naa ne excès de confiance bi mu am nii bu amul sens dina ko ndax ndax Malick Ndiaye 37 fou lu ko waay ñàkk a ñàkk a xam xam ne ndaanaan la ci bëre mën naa bëre mën naa xeex kii di Bou Siteu na bàyyi public bi ne mu bëre ak xel ndax lamb lamb ji nii mën na ko ubbi lu bëre bëre bëre ndax Malick Ndiaye boo xoolee xawoon nañ ko fàtte mais moom gis nga gis nga li may wax ndaanaan ndaanaanu bëre la foo ko naan la moom Malick déggoo li ma la wax foo ko toll day bëre moo tax ma ne Bou buy dem lu leer laan nañu ko yëkkati lu leer bés bu ko yëkkatiwul billaay dina am lu ko bett bàyyi jëli ay ta ñu ngi xeex ñoom ñaar Malick Ndiaye transfert fu yëpp ay bëre ndeysaan Malick Ndiaye 37 fu ak Bou Siteu déedéet ndax du bàyyi yoonam Bou moom ngeen jàkkaarloo Malick Ndiaye 37 fu moo leen woon ginnaaw ñu ngi fii ci arène nationale waa rent DKR production ñooñu fi woo ndeysaan mu nekk combat boo xamante ni ñëpp koy xaar Malick Ndiaye 37 fu Bou Siteu dugal na léegi coup daal bàyyi jiili dugal na daal sax vite fait yaakaar du xeex. non Malick Ndiaye lu mu def nii. Ndiaye daw na jël. mais Malick Ndiaye ba repère bi ba fàttewul perte repère. Ah, waaye en tout cas bu jàppee xam fi mu doon jëm de. waaw loolu am na na bëri daa nekk si moom waaye loo ci mën a boo ci mën a xam ba mu xam ko ci daal mooy amateur fi mu toll ñëpp a ngi concentré bu bàyyi ji ci làmb ji. c'est normal Malick Ndiaye 37 dafa gëj a bëre su ñëwee si làmb ji faw mu perte tuuti repère waaye bu Siteu. bu mu basé wu ci loolu ndax ñoom ñaar dinañ bëre dinañ xeex combat bi daj nañ ci lu ne pour Malick Ndiaye 37 fu ñëw bëre si gis nga ñëw na ci làmb ji ñoom ñaar ngi noonu. moo tax léegi ñëw na ne ana ñu waxoon ne damay daw maa ngi nii ana ñu waxoon damay daw mu ne ko làmb baaxoo coow. daw na jëli ko. dinañ xeex Bou ngi dox ci koom. Bou Siteu daa mel ni daa gis yoon bi baa jiili. gis na yoon bi Malick door na kubu dal. waaye ñi mi waaye Malick Ndiaye xeex bi mi xeex nii xeexu mbedd la bàyyi ji li. Malick Ndiaye yor na mbot bu garaaw Ousseyn. Eh, waaye seen pied bu garaaw. est-ce que moo ngi ci moom ba léegi. ah nañ xool waaye en tout cas daal ñoom ñaar ñaari pànk ñooy bëre ñaar ñu pànk ñooy laale. kii pànk la kii pangalang la. kan mooy pànk. <laughs> Malick Ndiaye mooy pànk bu Siteu mooy pangalang bi. <laughs> waaw Ousseyn luy différence pànk ak pangalang. Eh, xeex door mu daanu dina combat bi boo xamee door mu daanu dina am. xam nga am na ñoo xamante ne bu ñuy dox bàyyi jili dañuy bondé mais am na ñoo xam ne bu ñuy dox dañuy bondé boole koog tëb loolu mooy pangalang bi. waaw ah, ndeysaan. comme Bou day bondé day bondé mooy tëb. di tëb maa ngi ñaay buy dox day bondé. <laughs> ah. ndeysaan laa bëggee eh, njaabu golo. maa ngi ñaay mel ne ma njaabu golo ma. <laughs> waaye xam nga ni làmb mu mënu woon ñàkk am Ousseyn. mukk mukk mukk baa ji lii. bu Siteu Malick Ndiaye 37. combat sawul gaaw abit bàyyi leen. abit baa ngi wax ak ñoom waaye gëm naa ne mbokk yi li mu leen wax mooy bëre leen. abit bi su lu na ci diggante Malick Ndiaye 37 fu. bu Siteu mbokk yi moo takk téere yi ci bop bi. takk moos bu xonk bi ci dënn bi. daw na yooru ma bu. yooru na yooru na doon na ko Malick doon na ko. daw na jàpp. dinañ xeex ñoom ñaar Ousseyn ñoom ñaar jàppante nañ Bou Siteu door ci suuf. door baax na baaxul baaxul. Ah. oh Bou Siteu. daan na ko. Bou daan na Malick ba pare door ko. daan daan na ko door ko. Bou Siteu. daan na ko door ko. Eh, gaay daan na ko dóor ko